maanaam jëf lañ ko gën a yaa ngi fàttaliku Seydina Ousmane guddi rasulaay gi mu fanaane woon du ay ràkka de jàpp nga lool ràkk yu bari mënuñu kooku jàng alxuraan layu ko ko addi a joxe rasulaay fanaanee naafila moom mi nga xam ne naafila la man fu mu sëlmale du ni yaa allah du ni yaa rahim du ni bismillah yàlla Ousmane mii ni mu daggee sama buumu gàcce yi bu mu gisati mukk lu ko naqari adduna ak ko jox addi yi mii ngeen def moo ko jox nga man a joxe addi yi ba noppi fas yéene dinaa fi la rek yow ku dee ci dëkk bi yaa ko reen pour de njëkk maanaam jërul sax seet docteur yi ñu ngi naan ko dañ ko perfusé wul yow yaa ko parce que boo joxoon ne perfusé ko du gaaw a dee fekk ku xiif nga naan waay moom docteur dañ cee yow yaa rey ñëpp tax benn wàll yi dafa wax ni ku nekk ci noonu bala ngaa waat ne reyoo kenn baal ba dem àllaaxira parce que mën a dimbali nit sowee ko nga lànk ba mu faatu ngay fii tiitaru di jënd aw nag te da koy yoni kat gaay yu mën wax ci dij ba neen bu ngeen ne ba baye mbolé bi tok ngeen ko mako dimbré nak nag woowu te waa jaaga ca suuf ci ñu nakkasa nakkas ba lu muy jariñ sëñ xadim mi mo jang wax joju nee kon def ci fu ju baax in tub do khairan aw tuk fufu mo xam dang ko feñal ba ñepp gis ko tamuy lu baax yalla dalay fay parce que da ngay encouragé nit ñi pour ñu jëf suko ko nëbbi yalla fay da yàlla xam na ko wala ñu tooñ na nga jekku ba noppi mën a jekkale ba noppi baale dem ba jekku nit mu wóolu ni boo ko yóbboo police ñu tëj ko léeg-léeg nga gis benn locataire benn ku yor benn immobile building bu am presque cent chambres benn waaye bu mel ni Pape Dieng nga xam ne amul ñaari junni nga luyee ko pentre ñaari junni yéex a ñëw nga nga ko nga indi wiise génne yaag sànni ko ca mbedd ma te yàlla may la téeméeri nii yooyu luyee kii amul lu nu benn maanaam amul sax lu fay pantre bi nga buude ko waaye xooloo yàlla mi la defal lii ni nga def jaamam bi te kat li la li la fal yow ak li fulli waa ji tullul ci yàlla ni fépp suuf su neexoon ci borom mu dégradé la nga don ci gëna yak ci kaw suuf mu jox waaji ki gëna am ci kaw suuf yow ko japp ni lim am do manam ak ban milliardaire nga japp ni rek manam dooleem moo ko may ak ko xam ki nga xam bala ñu sarax ko mu an da nga japp ni moo def bokk du nonu moo ma gisee kër Baay Taale bii ñu teg fa bool gaa yu bari sukk ca yu mu xamut man ni may kontaane yàlla xam na loolu loolu nga moom li nga nekk ci sa biir bi moomoo ko xam ko ko moom toilette ba léegi nga yóbbu ko fa moo tax tabax sa àdduna ba mu ni booy tabaay si kër alaaxira mu ni nëtax te am na ñoo xam ne tabax nañu seen àdduna ba mu jàkk te seen alaaxira dara newu fa waxtu ñu faatoo xam yàlla noonu yàlla defal jàmm defal nu tawféex defal na sutura ba ëllëg ñu del seeg jàmm bi jaay rasulullah alayhi salaatu loolu mooy fi la suñu xaarim tëjee tey jii wax jooju noonu allahuma inna ko maa ngi gërëm nag gis nga am na ñoo xam ne ndogu yi ngeen di def nii ni ngeen ci jàmbaaree ba tey ji nit ñi bàyyi seen laxasaay yaa ngi may jox ko tudd soxna Khadija def naa mi ngi France musuñu tek bët ci caméra yi rek lay gisee dembu la ni li ngeen def lama ci cee bëgg bokk woo sëriñ Assane mi mo woo bari jiili mu joxe participation defe na soxna paya la ki ma doon wax paya ba légui ci ngon bi mooy jot téléphone lu fa sori ni yeen da man li ngeen def dama ci bëgg participer bokk seen liggéey bi ngir yalla lu bax ñepp ko bëgg maa ngi jot léegi sa jëw bi ngeen génnee ci jàkka ji imam mii di wax ni ni xol bi sedd na ci bi mu gisee organisation yi noonu la ci yàlla yi déggee maanaam togg centaine de personnes ñëpp di lekk di naan di ndogu ci weeru yàlla wi ah ñu bari di ci participer ngir dundal Mohamed naa ngi lay wax leen maanaam koor ku ne sa koor la ba jant bi soxla 6 heures du matin ba 6 heures du soir soo bëggee am ci promotion yi en pour cent fexeel bay ndogaaleel kenn par bis fi ne saa yoon ndogaalee kenn am nga tuyaaba yu toll ni koorug waaja maanaam ci journée bi am nga sa koor am koorug baytaala ñaari ñaari ñaari bis nga am ci benn bis bi bu subaa nga dogal ko am nga 4 journée ginnaaw subaa nga dogal ko am nga 6 jours bu ngeen amee 30 jours am nga 2 mois yoo yoo kimine yow waaw kon boo dee ndogul nangami nit téeméeri nit par jour 200 personnes par jour maanaam boo ko doon lim ñaata nit ñaa ñaata ñaata ñaata ci tuya ba ngay am wax naa ko keroog benn tàndarma ku ko jox ni ci weeru koor suñu borom nee jéggal naa la loo mu mës a tooñ parce que koor dafa maa neex ah loolu mooy fi ne kon nañ góorgóorlu bu baax a baax ci jëf dundalaate ci weeru koor topp alxuraanam ji li ci biir dafa aju moo tax ñuy jëf lu baax lépp ci weer yi yàlla na yàlla fay ñu nekk fii ci jataay bi ñu nekk bitim réew ñu nekk feneen ak ñi koy organiser di ko joxe bu ci kenn dugg par asaar maanaam xumb xumb bu mu ñu yóbbu maanaam jaamu yàlla la yow miy togg heure bi nga gàddoo matt gi jëm ci taal bi malaaka yi topp na la xam ne yaa kumba kat mi ngi jël matt gi jëm ci taal bi dafa fas yéene ga ñu wooraloon yàlla mu dundal leen bu ndogoo kay ku sotti pot ndox ka benn jën mbaa yàpp dugal ca ka ca kafe ga dégg nga ko ak kay sar wi même ki jël kaas bi naan ko ak ki joxe dépense bi maanaam gis nga caméra bii bu ngeen demee seen kër ngeen tàppe ko ndogul démb kooru démb naa fi la mi ngi ci teg nit a ko def sëñ borom am na caméraman yoo xam ni as ak siw leen ci wewu dee te ñum seen bés xam nga bii bu ko li nga waxoon léegi na nga ko def affaire bi effacé wu nu mu tudd formaté mu dañ bee kenn mënu ko dindi bii nii mooy formaté muy effacé wu caméraman yi suñu borom bi xam nga kañ koy kañ nga koy jot waxtu wu ñu tëddee ci bàmmeel ba dekki fa sayarlaha amalukum yàlla nee na ihmaloo jëf leen te bu ngeen di jëf bu leen tay lu mu yàgg yàgg yàgg bis fa sayarlaha amalukum dinaa leen wan li ngeen jëf bis bu ñu nit ñi dekkee ñëpp nii lañuy def bu ñu dekkee sol càngaay yu ñu armal booy aj màkka noonu ngay def noonu yi fii feeñ bu ñu dekkee ci bàmmeel ñëpp noonu la ñuy def taalal tànk yi 40 mille ans ñeent fukki junni at kenn du buuse góor ak jigéen mag ak ndaw parce que amaguñu ordre lu jóg taxaw ñu teg xool leen photo bee leen koy gis bi sama ginnaaw nii gis nga ko ñu teg film bi lu waaye mos a jëf ci kaw suuf fenn bi daw bu ne tay pap jëng nel bi ne tayax fee ne saa maa nga nee di ree am foofu bu dee génn mu njatt loos bi parce que bëggul koo xamee fase yaram la amalu ko bisi ngi ñëw léppay leer kon nañ ko nañ ko sóorale kon lu waay def muy tàngal kafeek dagg mburóog dagg sobleek nangam bu ci jublu xumbaay bi jaamu ci yàlla man loolu laay sant moo tax ma noppee ci fulk bi jaar xool leen sama xol sedd ci ma dem ca kaw loolu la ñuy nekkee bég man fi ne àjjana lay dund àjjana dund leen aljana ci seen xol yi génn ci xol yu bon yeeg rànkiñ yu kenn xamul day taat leen nit allahumma inna nasaluka min kulli hamin farjan wa min kulli dexin maxraja wa min kulli usrin wa min kulli faisatin sitran wa ala kulli xayrin sabira bi rahmatika ya arhamar rahimina ya rabbal